premier point, il y a deux points que je développe aujourd'hui sur les élections. Donc, le premier point, c'est clair. Je veux que ce débat-là, qu'on l'enterre, que personne ne vienne nous dire dans ce pays-là que Yéwi a gagné les élections territoriales. Dakar, ce n'est pas le Sénégal. Ziguinchor, ce n'est pas le Sénégal. Le Sénégal, c'est 14 régions et une quarantaine de départements, 45. On a les 32 ou 46, 39 départements gagnés, 6 départements perdus. Et on nous dit qu'on a, perdu. Qu'on arrête de dire que Bédou a perdu les élections. Que Macky a été battu où On fait le compte des voix. Nous ne compter. Vous compter voix, vous comment de Vous comptez département, vous comment Vous comptez communes, plus de 500 communes pas, Sur 500 et poussière. Oui, oui, oui, manipulation la sonko la Songo. sonko la bu ñu lekk bu ñu naan déjà mais nañ démystifier quoi manipulation donc premier point je deuxième point rapidement la situation internationale Qui sait qu'il y def faire une manifestation vendredi pour les maliens maliens <laughs> Sénégal bëri naa fekk Maliens yi kenn du leen def dara ki leen def dara kay mooy ki am ay fetal ñëw nangu nguur gi ñu may ko dix-huit mois pour mu joxe nguur gi alors que waroon jël sax nguur gi ndax Ibrahima Boubacar Keïta dee na njoo ko gudd xatal ba mu dee na xëy na bu nekkoon président nekk dans de bonnes conditions du dee léegi mais toroxal nañ ko. Il alors deux ans même pas deux ans sur les cinq ans xam ngeen Mali réew réew coup d'état depuis Moussa Traoré depuis ATT depuis général Sanogo le capitaine Sanogo depuis le colonel Goïta nous avons fait affaire affaire coup d'état tàmm une démocratie mais c'est le régimes régime militaire du fi amati

ñu la bo demee boo déggee bal bo jegee kay dugal nga né mënuma dugal bal bi kat parce ban GIA soy ñoo den ñoo wajja bu ñu dugalal bi ñu do doo tor bal bi ci oore ci touche da nga dem bu dugal mani CEDEAO ben mo ci contre le peuple malien eh. dégg na dof bobu ki Mari Sagna eh. xéne mom moom interne la mom xam nga mom asile son asile c'est la prison

mais dooleem jooju buy jaay parce que tax na demul prison junni yoon lu mu ci mënoon du ko jàpp yóbbu prison ku ko mënoon téye sonko mi bi ko ñàkkoon ci kaso bi ku ci man dara Khalifa Sall bi ko yóbbu ci prison ku ci man dara Karim Wade doomu président sortant bi muy dugg prison ku ci man dara yow yow yow yow booy boobu du tëb di dal foog ne da ngaa bëri tool yi du tëb di dal mag Babacar Diop façon yooyu ay yanaa maar genre dof yooyu di réewante ci réew mi naan président buy boobotee Mali yow Macky doo faram pale mais Guy Marius Sagna mooy kan ba mën a tax Macky Sall du faram pale loolu mën na ko ci arrêté yu réew lañ seen réew népp na da pare bëgg lu may taal Sénégal c'est des mais quand est-ce que e e a dit qu'elle va bombarder Mali ma su wax mii dañu nekk ay saytaane bëgg a gëmloo Sénégal yi naan sunu mbokku Maliens yi dañu bëgg a bombardé su kii bëri Sadio du bàyyi kàcc lu tar réew mi da ngay wut moom moo ko moobu léegi soo meeta Sonko man mi tàlli sama kër di comme mu ne talkat lañ bu du xam nga ni bi ba day fàtte ko ay terroristes yu bon lañ Mais leen ma ñu mais leen il faut les éviter la CDAO a dit simplement qu'elle va prendre des mesures et déjà elle a pris des mesures contre les militaires maliens et les militaires guinéens vont suivre car ils ont beaucoup militaires pas militaires sénégalais parce que ils sont formés formatés dans la démocratie ségorienne démocratie civilisée les militaires yu civilisé lañu am yu set xam le métier mais les militaires yooyu ay rayante ay coup d'état tëf tëf tëf mu am ñu dee daal installé bal dañ ko le monde avance le monde est un village planétaire les militaires les les les Maliens viennent de demander à l'ambassadeur de France de quitter de, quitter le Mali. Aujourd'hui, ils provoquent la France parce qu'ils ont maintenant des Russes. Ils ont des mercenaires russes de Wagner, envoyés par Poutine. C'est une ministre de Poutine. Donc la Russie veut s'emparer du Mali et la Russie vise le Sénégal. Parce qu'on a du pétrole. Le Mali sera la base arrière donc de la Russie pour attaquer le Sénégal demain. Parce que les Songolais sont avec les, les, tous les putschistes. Sonko a dit, je suis en contact direct avec les militaires maliens et guinéens, mais moi, wax feeñ di ah ñoom ñooy métaram ñoo koy dimbale nee na moom ñoom ñoo bokk xel toj rek ray rek dóor rek duma rek sàcc rek ça ko Sonko et son équipe Sonko jomb naa xam ni ku baax ay militaire la ñoom la ñoom la déggool ba mu demee Guinée Guinée Guinée eh, Guinée Bissau daan naa diw far yàlla ñu laabali kooku ba mu bëgg a dee mbaaloo falu muy bëgg a dee yalla toroxal ko mbokk yu àndaloon nan je je suis Gomes Gomes au Niger je suis en xam ma ban candidat gi ko muy jéem a pour ànd ak bande yooyu Sénégal tal Afrique tal Mali Sonko c'est un terroriste et il est l'élément des djihadistes foo pétrole attention Sénégalais Son Sonko est mercenaire bi nga xam ne moom la gars yi yaakaar. pour taal Sénégal pour dugg Sénégal nangu suñu pétrole bi bàyyi leen ci xel Sonko sàcc na suufu Sénégal yëpp bi mu nekkee impôt domaine léegi léegi suuf amatul xel mi yëpp ci pétrole bi la ko teg barke alxuraan Sonko a écrit un livre sur le pétrole du damay fen Sonko a écrit un livre sur le pétrole man jomb naa fen kenn doon damay fen man jomb naa fen Sonko yéen déggu leen déggu leen wala déggu leen wala

dama ku nekk naa fekk it baal la ku nekk envoyé de Sonko it baal naa la mais dama ni ndax Sonko bind na benn livre ci sur le pétrole ndax damay fen wala déet ñëpp xam ne bind na livre sur le pétrole ti jàngul pétrole dara impôt domaine la jàng droit dem ENAM dem def impôt domaine fu jàngee pétrole yow doo doo ingénieur pétrole yow liggéeyoo ci benn service buy de pétrole mais parce que mercenaire nga damay fen wala بنليم سلبي أثر هذا تبي أثر ولده لورنا كوجي مدرن تري لبيك نافيا خير سيدانة بالله كوجي مخول نين نك بك كوني جري من بلي بابي يرك نافيا خير سيدانة بركة خرا نك موني نك بن بن بن بنليم سلبي أثر ولده نك تبي أثر مميل من من تبي أثر بيقول ما فصل ما ينتبه تاسمه يرك مستعجل قال مميتي ريو نكيد فري مين يبغى تفعله؟ أنا من بوزي بيني كيشون ndax damay fen ñu foog ne man maa damay fen am Maodo jëpp ah day dof ñu ko foofu donc ñooñu laa bëgg a arrêté dès maintenant ndax naa fekk dama na a yàqal parce que boo dee ndax bind livre sur le pétrole ne ndax damay fen mooy dama ne est ce qu'il a écrit un livre sur le pétrole ou pas est ce que je mens ou pas waaye loolu bu ñu en français je traduis en français Sonko a écrit un livre sur le pétrole est ce que je mens ou pas ku dégg wolof rek dama jàng Mais la ngay corriger El Hadj Diouf man déggu ben langue bu olof leer nañ leen wax ku nekk naa fi rek baal naa la sama sama sama propos kenn mënu ko ridiculiser wala nga répété ko neen te ma toog gàtt ma fayda est-ce que Sonko a écrit un livre sur le pétrole ndax damay fen mais mais est-ce que ça n'a même pas de sens de dire que moi je mens je dis est-ce que je mens ou pas est-ce qu'il a écrit un livre sur le pétrole mais lu jeere